like ndax kat saa su loolu dafay nekk li nga xam ni luñ daal di jàppale la daanaka moom ay Mbodj nekk ki nga xam ni moo di yaay ci Ousmane Sonko comme ni mu koy daal di waxee saa su ne génn na daal di bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamee ni moom mi nga xam ni moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye am na ko président de la République waaye rawat nag ki nga xam ne tey jilee moo di ministre am boobule di premier ministre am di wéeju turu Ousmane Sonko di doomam daanaka moom mi nga xam ni moo di soxna si daal di addu bu baax a baax ci dëgërulaay bi nga xam ni ak projet bi nga xam ni moom lañ doon téye lu yàgg tey yàlla may leen ci ndam ci ginnaaw bee loolu moom nga xam ni moo di Aïda xamle woon bu baax a baax atum 2021 mën ne tàngoon na loolu ci ki nga xam ni moo di président Ousmane Sonko premier ministre bi waaye tey jilee mën nañ ne lépp lu coono amoon baay bu ne nekk na naflaay tey jilee loolee sax tax na mu daal di ci discours bi nga xam ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal na ko def tenir ko bu baax a baax rawat na ne du fàtte benn ñi seen i bakk ñàkk seen alal ñàkk ci lu nekk lu leen fàtte benn yoon ba tax na moom Aïda Mbodj di xamle ba léegi ne ki nga xam ni moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa am sant ak gërëm bu baax am li nga xam ni mën nañ ne dëgg dëgg dëgg dëgg la ndax kat li waral lu ñu mel du lenn lu dul li nga xam ni kenn du taxaw mukk ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye ay lobby ñoo ko fal wala France ñoo ko fal wala lenn ci kër sëriñ si ñoo ko fal wala kii wala kaa ñoo ko fal donte nag mën nañ ne ñëpp jàpp nañ ci bu baax a baax ñi nga xam ni ñooy sénégalais rek ñoo daal di ko fal daal di àddu xamle jamono guñ toon yi dañuy souveraineté normal di mën a teg di fal di def li nga xam ni moom mooy gouvernement ji ji yees def def li nga xam ni moom la askanu Sénégal daal di bëgg ba tax na sax moom Aïda Mbodj di xam le jamono guñ toll nii kon daanaka ki nga xam ne moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd ko ak premier ministre bi di Ousmane Sonko du yàgg dara di ngeen gis ci lenn ci li nga xam ni gouvernement bu yees bu baax bi xam ni moom la askanu Sénégal bëgg ba tax nañu tabb leen dinañ ko gis ci lu yàggul dara loolee mu nekk ay mbir yi nga xam ni lu daal di am solo la daanaka sax mën nañ ne gisin boobu gis na ñu ñi nga xam ni ñu xamle bu baax fii de mois de mai bi dinañu wàññi li nga xam ne moo di mise mburu bi di ko jaayee cent vingt di ko jaayee cent vingt cinq daanaka mën nañ ne kon gouvernement bi ñu ngi def ay pas donte nag xoxotal yi ci ñoom bu baax a baax waaye ki nga xam ni Mori yaay ci Ousmane Sonko di Aïda Mbodj daal di xam ne moom mën nañ ne xam nguur la tamit ku daal di nguur la waaye tamit ku yàgg ci nguur la moom amul lenn li nga xam ni tiit na ko dante sax mën nañ ne alliés yi nga xam ni dañu gisoon ni ko ñu daal di contrôle la kii la Sonko la tamit daan ci nekk ci beneen parti gis nañ bu baax a moom da daal dina faral addu ci ñoom daal dina xam ne xëy na amaana lu sotti daal di am borom waaye ñi nga xam ni ñoom lañ ko sëkkal di Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekkuñu ñi nga xam ni ñuy fàtte démb lañ benn yoon ak lu mënta am te li waral lu mel dañu gis ni saa su ne allié mën nañu ne ci mim réew fii lañ ko yàgg di fekk te fii lañ ko daal di bàyyi loolee sax tax na mu gis ni bu baax a baax ak lu mënta am gis na ñi nga xam ne ñoo di allié kii la di Ousmane parti bi nga xam ne fu ñu mënta woon far fu ñu mënta far lu mënta am dañuy gis ni ñi nga xam ni saa su ne ñoom taxawaay bi nga xam ne amee nañ ko mu nekk ay allié yi nga xam ni ñu am conviction totale lañ mu nekk ay allié yi nga xam ni ñu am détermination lañ ndax kat ku xool taxawaay bi nga xamee amee nañ ko gis nañu taf Pastef ak dogo bi nga xam ni saa su ñoom dañ ko daal defee am ba am ëllëg lu munta am bett ñoom benn yoon ndax kat daanaka saa su ne ñoom ñi lay di coalition bi lee wala kat di nga xam ne ñoo doon jàppale président ba Diomaye Diakhar Faye xam nañ bu baax a baax li leen di xaar ci askan gi la rawat na yi nga xam ne ñoom lañ daal di fal xam nañ bu baax a baax li leen di xaar ci askan bi rawat na président Bassirou Diomaye Diakhar Faye xam na bu baax li koy xaar askan bi rawat na ki nga xam ne moo di premier ministre di Ousmane Sonko xam na lu baax li koy xaar ci askan bi daanaka moom ay damba di addu xamle bu baax a baax kon nag jamono guñ toll ni mën nañ ne ak lu mun munta am ba am nañ Sénégal yi am ñoom yaakaar te xam ni duñ leen mës a décevoir benn yoon.